waaw ah, bàyyi ça va naka mooy amee ziar naka moom waaye démb daa mel wàcc naa xam ne est-ce que gis nga ko démb wàcc naa ko démb ci guddi gi waaw xaw naa sonn ab da doon juree ko nangu woon dox xaw naa tax ba mu ñëwee dugal naa ko ci mbaar foofu xam naa ndax gis nga ko parce que man maa ñëw après bu ñu xëyee nga nga xool ko ba xam xam baax na waaw si yoon bi lañ ma ko jaayee ko dama dama see dal rek benn waaye ji doon waateel xar rek ba jënd ko. ok ok Lamine gis naa kii nii Lamine gis naa xar mi. waaw ah, xar mi moom rëy na kii na mais est ce que xam nga matul xarum tabaski xar mi matul xarum tabaski de rëy na mais matu ko de matul xarum tabaski. waaw ah, luy loolu luy loolu. yow man ma xar fay ci deux cent cinquante xamante ne boo waroon jëndee ay cinq cent mille nga ko jëndee quatre cent mille ma jënd ay na ba jénn gudd nañ bët yi baax nañ lépp ko waaye gars yi ne bàyyi leen seen affaire soxore waaye ngeen li ngeen di def quoi yi waaye lu la ma ci xar mi xar mi la fa ñuul deful dara lépp normal na nga am ay xar baaxul non non man weddi ma la li nga wax sëñ Lamine man weddi ma li nga wax xam naa li nga wax bu baax a baax xar mi rëy na loolu taxul ne xarum tabaski sa xar mi boo ko xoolee bu baax a baax nga xam ne xarum bandi la boo xoolee ci wetu naq ji nga xam ne moom da doon sëy xar yi xar yi jigéen yi maanaam amul woon frontière daal loolu moo tax ma ne matul xarum tabaski xar mi da doon sëy xar yi jigéen yi mu daan nekkal ñëpp moom mu amul woon fa mu maanaam xarum saay-saay la daal. bu dee xarum saay-saayam xarum cagaak xarum LGBT la ci yemale xar bi moom laay tabaskee waaye fa lañ bind si kii naa ay waxu xar bu saay-saay ak xar bu kii xanaa xar du xar bu góor rek topal fale waaye nga naan ay waxu kii moom laay tabaskee laa wax waaw nañ na nekk xaru LGBT na nekk huit couleur moom laay tabaskee de mi nga loolu muy tëb dal naa ay xar mi day kii day xoma day laal xoma ak leneen li kii yéen saxal quoi